waa xam nga mbiru Njaañ nee na tey mënoon nañ ko saafara su fekkoon ni jëfee nañu man li ma leen wax ndax kat président Macky Sall su ko yàlla mayee ndam teew waroon na seet ñun projet de société yi nu joxe lan moo si amal njariñ Sénégal mu appliqué ko man sax gis naa yoo xam ni doon naa ko wax si projet de société gis naa ni ñu ngi koy appliqué dégg naa moom mu wax ni dana ko jëfe waaye. mbi mbirum taxawal benn ministère bu rëy boo xam ni day dox si mbirum diine wala benn haut conseil chargé des affaires du culte boo xam ni mbirum diine lay dox loolu suñ ko defoon tey du am réeroo waaw conseil de culte au conseil oui au conseil chargé des affaires religieuses ni ko Idrissa waxoon man ministère laa bëggoon ndax ministère bi li ma bëgg moo doon du yem rek si xool ak ñoom nan la ñu war jàngalee xam nga bés bi ne nga dégg réeroo bu am diggante nguur gi nga xam ne dafa bëgg jëfe yoon ak metre coranique yi su fekkee ni man layool naa ba tàyyi maître coranique mas jàpp rek maa la daan layool ndax booba danoo dem si sëñ Saaliw wala nu dem si sëñ Basiiru mu sëñ Fàllu mu yabal leen si man layool naa leen ba tàyyi moo tax ma xamoon ni il faut nécessairement nguur gi di waxtaan ak ñoom nguur gi di leen yee si àddina doxalinu àddina ak lan moo war si doxalinu àddina yooyu yëpp suñ ko defee kon doonunu am benn jafe-jafe kon te eh, eh, réero bi ndax ñooñu kat mën naa waat ni li ko nit ñi di tudde doonu lool de bi ma nekke avocat danaa xam le nekkul ñoo xam ni danoo soxore xaleel déedéet nekkul ñoo xam dañu bëgg jël xaleel di ko def jaam déedéet danu doon ñoo xam ni yaakaar na ni xale bi lii lan koy def mu mu barkeel arxuraan ji ma wut mu barkeel ka ëllëg mu man ka jariñoo man bëri na ay kilifa diine yoo xam dañ lay wax ni la àgg nañu fii nii lañ leen jàngale waaye nag jamono day dox war nañu man waxtaan ni ko sëñ Mountakha waxee nee na war nañu man waxtaan ak këru diine yépp jëbal nguur gi loo xam ni dana ko jëfe fàttani ni yom moo foofu waxoon naan si biir njàngum alxuraan bi dama doon waxtaan ak këru kilifa diine yi ci biir njàng mi ñu boole si jàngu métier ba nit ki su jàngee alxuraan ba ni ar su jàngee métier boole si ëllëg dana am nu mu jëfandikoo ba liggéey te loolu dana am njariñ dana am njariñ si moom loolu yëpp ay proposition yu ñu defoon la waaye nag jot na gouvernement bi waxtaan ak kilifa diine yi ak maître coranique gi ñu fexe na leen ko jëfe waaye jël nit arrêté ko tëj ko jël waajur yo tëj ko ñooñu yeewuloo leen si àddina parce que ñoom li noo def gëmunu benn yoon ni lu bon la wala gëmunu benn yoon ni danoo gaañ xale bi lu nu gëm mooy ni lii li noo def dafay jariñ xariñ ba ëllëg ndax kat bëri na tey ñoo xam ni fii am nañ cër su dee diine ci su dee su dee mu jëm aussi si cëru àddina si cëru àddina àgg na noog ñoom foofu ñoom loolu rek lañ koy gëmee yow nag fexeel leen ba wax leen ni leen am na neneen nun koy defee noo xam ne mooy gën dëppook jamono am jàngale mi xene beneen xeetu jàngale boo xam ne mooy dëppook jamono suñu la ko nanguloo benn erreur du am